jërë ngeen jëf mbokk internet yi ginnaaw bu ñu leen di yoo dal leen ak jàmm ci seen i actualité du jour di xibaar yi gën a fës si internet bi di xibaar dañ koy dooree ak la xew foofee ca diwaanu Grand Yoff jëmale nag ci ki nga xamante ne nii moom moo di imam Cheikh Ahmed Tidiane moom mi nag moo nekkoon imam ratib mosquée bu Grand Yoff ci diiru ñetti fan nag moom imam bi lee dafa jékki saay ni mër réer ay mbokkam réer waa jàkka ji nga doon euh, jullee ñu daal di koy euh, déclaré fu nekk euh, di ko wër moom imam bi xamuñu ci lan la nekk ak lan moo ko téye ba mu daal di war a mën a réer ba tax na nag ay photom fu nekk daal di nañ koy affiché ci réseaux sociaux yi ngir mën koo gis moom mi li nag daal di nañ koy gis waaye anam bañu ko gisee neexul ay mbokkam ndax imam bi lee ñu ngi ko fekk kon mu daal di ñàkk bakkenam ci benn bassin boo xamante ni bassin de rétention la bu nekk foofee euh, ca Grand Yoff kenn koo xamante ni nag mu nga yeewoo ca boobu lépp koñ buñ sukkandikoo ci xibaar yi seen web fësal euh, moom moo daal di koy def boobu lépp découverte ñu fekk ko mu ñàkk bakkenam ci bassin bi nga xamante ni sax euh, mu ngi nekk ci yoon bi jëm ci këram ñu ngi fekk nag ñu daal di koy muuroon benn tissu nee nañu nag police confirmé na leen ni seen imam boobule ñu doon wër moom la ba fi ne enquête daal di nañ koy euh, ubbi. Seneweb bi fësal bi lépp xibaar xam na ni nag fi mu ne euh, daal di nañu ubbi ab euh, enquête itam nag sapeur pompier yi daal di nañu jël lii di ab néewam moom góor gile ngir autopsie moom mi leen nag di Cheikh Ahmed Tidiane Tall ci fàttali mu nekkoon imam ratib bu mosquée bu Grand Yoff nekk ñetti fan nag mu ngi nii ay mbokkam di ko wër ndax. ndax dafa réeroon waaye fi mu ne nii xam ne nañ ni euh, gis nañ ko te ñu ngi ko fekk mu ñàkk euh, bakkenam ñu ngi cay enquête nag ngir xam euh, loole la moo ko waral ak mu dee loxo la itam kan moo ko def. ñu woy ci yile xibaar gën internet bi waxtaanee nag ki nga xamante ne nii moom moo di ndey Ngone Wade moom ndaw si le nag depuis atum 2019 mu gisu mandat de dépôt ba ñu koy teg loxo nag ci jour boobule moom moo présenté wul boppam ci kanamu officier état. état civil bu Kër Massar ngir ñu defal ko kon li ñu duppee certificat d'inhumation ci ab doomam boo xamante ne nii moom la gàddu woon ci ay loxoom ak ki nga xamante ni nag moom moo di officier bi boobu lépp demande jaaxal ko loolu ca la ca waa police moom mi di ndaw si le nag ndekete la mu def kon du leen lu dul faat doomam joojule ba pare doon ko jéem nëpp nëppal la mu def mooy daal di koy xocc ba xale bi la ñàkk bakkanam ngir justifier jëfam ju ñaaw joojule nag nee na kon ah, ki nga xamante ni moom mooy jur xale ba di ab baayam daf koo ëmbal ba noppi rejeté ko daal di dem bàyyi ko moo tax nag mu jaxasoo woon loolu ah, te fi mu ne nee na xasoon naa am ba am ñaari doom yoo xamante ni ñoom ñaar ñëpp kenn bokk ci woon ah, papa maanaam kenn bokk ci sant dooleeku ci moom moom li mujjoon juddu muy xam ne ni googule gàcce nag moom mënu ko woon rek àndaale moo tax mu sàkkal pexe gune googule ci kanamu chambre criminelle moom ndaw si lee nee na ca jëlbeen ba sax amoon na intention garder doomam bi lee waaye nag def na ay visite prénatale am ak yépp waaye daal ba fam ca mujjee rek mooy ni na ko sàkkal pexe ndax société bi ñuy dundee nee na li nga xamante ne moom moo di woy bu ñaaw moom la doon bañ mu topp ko fi mu ne nii nag kon mu nga ca prison ba depuis atub 2019 ab atem nga xamante ne nag dañ ko doon amalaat ni ki démb dañ ko mujjee dàkkandiwaat xibaar wax ci accident bi nga xamante ni nag am na niki démb foofee ci ca waawan euh, Tiwaawan boobu lépp accident nag benn jakarta boo xamante ni kon euh, moo doon rek euh, yóbbu ñetti euh, jeunes yoo xamante ni kon ñu ngi bàyyeekoo woon jiggante Thiès ak ci waawan moo daal di rek mbëkkanteeg benn oto 4 x bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di témoin yi moom mi doon dawal jakarta bi ab camion moom la doon jéem a éviter ci noonee kon daal di foncé daal di dugg nag li nga xamante ni moom moo di 4 x bi choc ba nag ak force ba mu am ak vitesse ba mu àndal moo waral kon ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñaar ci ñu nekkoon ci Jakarta bi dañoo mujjee rek ñàkk seen bakken ñetteel bi nag moom daal dinay am gaañu gaañu yu méttee métti ba daal nañ koy yóbbu l'hôpital fi mu ne nii ubbi nañ ca ab enquête ngir xam dëgg-dëgg boobu lépp accident lan moo ko waral xewee woon ni ki tey foofee ca diwaanu ci waawan lu sorewul dara lam-lam ñu wax ci leneen ba tey ci lay ci li nga xamante ne jamono ji daal dinañ koy eh, xewal loolu eh, jëmale ci ñii di jigéen ñi ñu daal di koy duppe anytime mu di ab xeetu cérémonie boo xamante ni kon dañ koy def euh, suñ ne ëllëg lañ leen di euh, takk waaye nag la ci gën a yéeme jamono jile dafa am ñu bëree bëri ñoo xamante ni euh, sëy nañ ba fàtte wala bokk am fukki at ak lu tekk ni boobu lépp anytime gannaaw bañ leen yi takk xewul woon ñoom dañuy rattrapé wu daal di koy def nag ka ca gën a fës nag jamono ji tax ñu koy waxtaanee moom moo di Mame Ndiaye Savon moom li ku ñu ràññee loolu la ci réseau bi di TikTok katu ay uh, diw ak i uh, saabu jëm ci ay uh, xeesal moom Ndaw Sidé moo doon féete dix ans wu mariage am ni day def anytime waaye lañ ca nemmeeku moo di ay xeetuwaa colin ak i fecc yi jëmale ci ay lëmbal yoo xamante ni euh, choqué na internet yu baree bari yu jàpp ni dafa vulgaire ba tax na nag ONG bii di Jamra daal dina cay euh, antu dugg ca boobu lépp dossier euh, ki nga xamante ni moom moo di maam Makhtar Gueye di njiit la jamono ji fësal na ab communiqué wax nag ci kawu maam Ndiaye Savon ak anytime boobee nga xamante ni moom na mu ko tuddee moo di anytime satanique maanaam yëf yi seytaane la moom Mame Makhtar Gueye ci ab communiqué am lamu la mu ca xamle mooy rek ginnaaw sax ay jamono ci ginnaaw nga xamante ni kon ñu ngi doon rek waxte noppeeguñu ci brésilienne yi nga xamante ni kon ñoom ñoo fii ñëwoon ci ab soirée sol ay sol yoo xamante ni kenn xamu ko. di wane seeni ay cër ñu di ko nakarlu pareeguñu eh, lii ñu xamante ni moom la ñu duppee anytime ñu daal di koy jël eh, mu jàpp ni rek exhibitionnisme sexuel la maanaam wane say cër gu bon a bon eh, képp moom lay wundu daal dinay xamle ni nag ki nga xamante ni moom mooy promotrice bi di Mame Ndiaye Savon nga xamante ni kon dafay wax rek ni dafay def marketing ay produits cosmétiques yu muy jaay seen yu choquante yu insolente moom la def ci boobu lépp anytime Time te ñoom nag ak ñii di ONG Jamra ak niñ ko defeek ñeneen ak ñeneen dinañ nag fas yéene def li ñu duppee Shura xamle na ni kon moom maam Mame Matar Gueye ak ñamu àndaloon woo nañ Mame Ndiaye Savon di ko jéem a jot ngir nag waxtaan ak moom si njëkk ak euh, teranga ba li ni mel bu mu amati mukk itam mu daal di nag euh, jéggalu euh, lu mooy rek dinañu mën saisir ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa brigade des mœurs ak procureur de la république ngir nag ñu yël yëf yi yóbbu ko ci kanamu yoon mu dem luy ji ndax lu ni mel dëppoowul benn yoon ak valeur yi nga xamante ni suñu société moom la daal di làmbul jëmale nag ci lii di kersa sutura waaye itam nag nëbb say cër ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di euh, jigéen ñi ñu jeexale yi lay xibaar gën a fës ci internet bi ak li nga xamante ne moom moo di màggalu ko poroxaan gi ñu jagleel euh, soxna Mariama Bousso ñu gën koo xam ci maam jaara wala jaaratulaay yi nekk wayjur bu jigéen ci kii di euh, Serigne Touba Mbacke mi taxawal yoonu murid ñu ngi koy màggal nag ni ki tey moom mi nga xamante ne moom mooy jaaratulaa moom képp moom mooy jigéen boo xamante ne nii nag kon ci Sénégal moom moo am màggal goo xamante kon bis bu ñuy jàppale di ko ko jagleel di ko ko sargal ndax liggéey bi nga xamante ni di liggéey boo am solo bi mu def nag ci yoonu murit itam ci dundam gi nga xamante ni daanaka lu gàtt lool def ci àddina waaye am na solo am solo goo xamante ni moom jaaratulaay royukaay la ci bépp jigéen waral mu bari ay turandoo loolu ak i daara yoo xamante ni kon moom lañu ko duppee fi mu ne nii nag ca Touba ay junni junni fidèle ca Poroxaan ñu nga fay dajee ngir màggal ko itam daal di koy ñaanal moom mi di euh, soxna jaara mbokk internet yi fii la ñu yem ak yéen tey seeni actualité du jour jox leen dig daje ëllëg ak jam ci yeneen xibaar jaa ngeen jëf.